moom xasqiil bi mu répété baat yi ba wóoluwaat boppam mu daldi di dellu siwaat bi mu dellusee ba toog dem bay waxaat yàlla rocciwaat kalaama ci moom amatul ak wax ludul ak muumaa nekk ci moom ak lu mu commencé liyaar ñu jàppaat ko caw ko bu muy bëgg a dee mu delluwaat ba mu delluwaatee nag ba ca yoon wa yàlla delluwaat ko ak wax ci la xamee nag ne liir bi du liiru como du liir bu ñuy feeñal ci la tooge nag jàpp ñàmburam e yàlla dogal nag bi ndaw si dellusee di seet ba xam ndax keesam pare na wala déet fekk na ay soldaar ñu ngi ci biir kër xasqiin di ko laaj lu tax mu defar kees gii waaw ñu ne ko xasqiin li ma sanacta hada taabuut wa li man ayuha najaar mu ne sanactuhu li nafsi wa li ahli sawnan li tharwati wa tharwatihim ñu ne ko amithluhu laa yubaacu li axadin in talabahu mink fa qaala laa xasqiil bi nga xamante ni yaayu Moussa dellusi na pour jël si kees gi lu jiitu muy dugg ci kër gi fekk na fa ay soldaar yoo xamante ni ñu ngi këreel xasqiil ci kees gi nga xamante ni liggéey na ko di ko laaj lu tax mu liggéey ko ñu ne ko lu tax nga liggéey kees gi yow menuisier bi mu ne ko dama ko liggéey pour sama bopp liggéey ko itam pour sama famille pour mën cee denc seeni koom-koom ak sama koom-koom man ñu ne ko ndax kees yu mel nii doo ko faral di liggéey di ko jaay bu fekkee nit soxla na ko ci yow mu ne déedéet man yi dama koy liggéey rek pour sama bopp di ko jariñoo waaye liggéeyaluma ko kenn e yàlla dogal nag bi nga xamante ni soldaar yi dem nañu yonent yàlla Moussa yaay ji daal di dugg si bi mu dugg see nag Xasqiil daal di jël kees gi jox ko yaayu Moussa e li tax nag ba léegi tudduñu turu yaayu Moussa loolu dañ naan rekk yaayu Moussa tur wi dañu ne e ñi ko xam bariwul ndax tur la boo xamante ni xam ko dafa bëri njariñ lool te itam ku ko xam ñaare sa affaire dana baax lool ndax secret bi nga xamante ni mu ngi ci biir tur wi e nit ñi nag ñu ngi koy gëstu pour jéem ko xam ñàkkul ne am na ñenn ñu ko xam waaye daal ku ko xam moom et daneen la joxoñ ak ay baaraam ndax ku yàlla baaxe ngay nekk loo tax turam nekkul lu ñuy exposé ci téere yi lu dul ne nag bari na sax ñu ci wax e ñii ne nii la tudd ñi ne naa la tudd waaye daal liñ ci mën a wax daal tur la boo xamante ni daal euh, xam xam xam xam la boo xamante ni kenn du ko bind ci téere xëy na dañ koy déeyoonte kay yaay Muusa bi mu jëlee kees gi def na li ko boroomam santoon te moo di nàmpal na yonent yàlla Muusa ba mu màndi mu daldi koy dugal ci kees gi daldi woo rakkam doomam jooju ñuy wax euh, Maryam di mag ci yonent yàlla Muusa mu woo ko bu mu ñëw mu ne ko nag sama doom ji dañ ma digal ne naa ko nàmpal dugal ko ci kees gi sànni ko ci géej gi foofu nag xale bi e cofeelu mag ci rakk daldi yëngu ci xolam mu wax ak yaay ji ni ko umma wa kayfa yatibu qalbuki wa anti tarmi waladaki alsaxiri fi nniil waltayaaru yandaficu ila xaytu la nacrif aw yakunu akila alasmaak qaalat laa yaa binti siwa annani kuntu aclamu anna allaha arxamu bihi minni wa annahu yuxibuhu akthara mima uxibuhu ana mu ne ko itbaci ithrahu mariyam daa di wax yaay ji ne ko sama yaay naka la sa xol mën a teeyee ngay jël sa doom di ko sànni sa doom ju ndaw ji nga jël ko di ko sànni ci dex gi te vague yi ñu ngi jañu di dem fu kenn xamul te vagg yi danañ ko yóbbu foo xamante ni doo ko gis duma ko gis walla sax mu mujj nekk ñamu jën yi yaay xanaa sa xel àndulook moom xanaa sa xol dawul yaay ji ne ko déedéet yow sama doom def naa ko ngir xam ne yàlla mi ma ko sant moo ëpp yërmande ci moom te itam sama cofeel ci moom lu tuuti la soo ko dendaleeg cofeelu yàlla ci moom ne ko yàlla ma ko gën a bëgg fuuf mu ne kon nag li ma lay sant mooy toppal ma rekk ci gannaaw kees gi di ma ko surveiller loo xam ci moom rekk nga ñëw wax ma ko ma daal sama boroom sant na ma waaye danaa def nga xam ne kon li ñuy wax naan ndigal ak ndugal bokkul ndigal sa njariñ la ndugal nag dañ lay dugal mu mel ni yonent yàlla Muusa yaayam yàlla daf ko digal mu jëfi ndigal la moo tax itam la yàlla chartonte woon ak moom fokk mu matal ko kon mu mel ni bu la yàlla digalee lu mu tiis tiis tiis defar rekk ndax njariñ rekk moo cay juddoo léegi bi mu ko sànnee Mariam topp na kees gi di ko xool di surveiller et vague yi di yóbbu di yóbbu kees gi di yóbbu kees gi e dex gi mu ngi ci buntu pale na mu di dexu niil xam nga léegi sax nit ñi boo dee xool léegi ku la ëpp alal rek la muy bëgg mooy jéem a dëkk ci wetu ndox dëkk ci wetu euh, tefes yi parce que fa ngay amee air pur fa la itam sa yaram di gën a naye fa lay gën a dunde firawna itam amoon na loolu ndax na ko xamoon dundin la ak na muy dunde na yàlla jayoon na ko ba lépp lu jëm ci wàllu dund daf ko xam-xam bu wér ci luy waral yaramam dund ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yàlla xam-xam boobu yàlla daf ko joxoon pour lan pour rek mu gën a mën a déjjeerlu ci àdduna gën a mën a xemem àdduna mu mel ni dex googu nga xamante ni moo ñëw ba ci buntu pale Firawna ndeke amoon na ay jaam yu jigéen yoo xamante ni e, jaam lanu ci soxna Firawna mu di Asiya Asiya moomu nag e, bi nga xamante ni xale yu jigéen ñi ñu ngi sang ci dex gi lañu jékki-jékki rek gis benn kees kees gi nag ñu ngi koy séen daal mu ngi sës ci benn garab ci wetu garab gi nag am na ay ñax waaw kees gi daal fa la costé xale yi nag yaakaar ne xëy na ay or ay takkaay ñoo nekk ci biir kees gi ñu njëkkante kees gi daal di dem for ko bi ñu ko foree nag daal di ñëw fekk Asiya fi mu toog ci pale bi ñu ñëw ne ko yaa Asiya hada sunduqun qad alqa bihi niilu ilayna wa naxnu la naarifu maada huwa fi daaxilihi asiya daal di koy xool ne sunduuq laalla alxilya fi daaxilihi sheyun maknuun ñu ne ko asiya lii de ak kees la goo xamante ni dex gi moo ñu ko jox ñu ngi ko fore ci biir dex gi waaye nag xamuñu lan moo nekk ci biir ndax jotuñu ko ubbi asiya daal téye kees gi na xëy na boog ay takkaay ci nekk ay or ak yooyu daal woo nag ay soldaar kon comme xamaguñu lan moo war a nekk ci biir ñu woo nag ay soldaar yu am doole te am kattan ñeme pour ñu ubbi ko ndax bu fa safaan nekkee itam ñu mën ko rey ndax kees yooyu mën nañ ci def luy gaañe ñu ñëwee ñoom ñëpp ñu armewu pour ubbi kees gi fekk kees gi boobu benn liir a ci nekk waaye xamuñu lan moo ci nekk bi ñu dajjee kees gi ba ubbi ko ñoom ñépp ñu ngi armé wu nga xam ne bu doon ne safaana ci nekk rek balaa génn kees gi ci biir kees gi leen koy rey waaw ndax soldaar yu takku te itam yu ñàkk caaxaan te sàgganuñu ñoo doon ubbi kees gi bi ñu ubbee rek mu di liir te ñoom ñépp liir bu góor rek leen doon wut pour rey ko xanaa kon reye ci gënoon a jekk yàlla nag foofu wax na yonent yàlla Muusa ne ko maa sànni bayre ci sa kanam ba ku la gis sopp la looloo tax kenn reyu la nekkoon ci biir kees gi lañ lay reye wa alqaytu alayka mahabbatan minni waaw cofeel boobu nga xamante ni yàlla sànni na ko ci kanamu yonent yàlla Muusa ba ku ko gis sopp ko dañ ko ubbi rek asiya sopp ko waaye lu njëkk Asiya di ko jël ndeke amoon na benn doomu Firawna bu jigéen boo xamante ni dafa yoroon feebaru ràmm moom moo ko njëkk fab ba mu ko fabee nag yuut yi nga xamante ni moo doon génn ci gémmiñu yonent yàlla Muusaa taq ci loxo doom bu jigéen boobu nga xam ne Firawna ko jur waaye fu yuut yi taq rek ci feebaru ràmmam bi foofu day wér mu daldi jël nag yuut yi di ko raay ci loxo bi fu mu raay rek mu wér ah ñu xam ne kat xale bi xale bu am bayre la te xale la itam bu am barke ndax dugg ci kër rek commencé wéral feebar boo xamante ni médecin yëpp tële woon nañ ko kooku itam wax dëgg yàlla barke la gu yàlla def ci xale bi Asiya daal di jël xale bi nag téye ko fekk boobu firaxaw na mu ngi génn ñëwul bi na ñëwee Asiya ne quoi man de am naa benn xabaar daal dafa am lu mu la bëggoon a dégale mu ne ko loolu lan la mu ne ko daal dama fi am daal lu saf xorom loo xamante ni xam naa boo ko gisee da kontaan mu ne ko loolu lan la mu ne ko tiflun jamilun malih mu ne ko xale bu rafet te am bayrete saf xorom firaw na xool ko daal di dumóoyu ne ko xaleel parce que boobu firaaw na xale bu góor rekk yóbbu fitam mu ne ko xaleel foofu nag la seytaane bu mag bi daal di jóge mu di Haamaan Haamaan moom ci la jóg ne ko yow firaaw na na nga def très attention man dama ragal ne xale bii moo doon xale bi biñ doon wut pour rey ko ndax xale bi daal ni mu duggee fii jaaxal na ma boo ko reyul daal mën na laa indile ay problème waaye comme jigéen moom bu fekkee jëkkëram daf ko bëgg mu nekk seytaaneem muy ëpp doole ci moom keneen waaye li wax moom seetlu la boo xamante ni wax dëgg yàlla boo ko dee gëstu dëgg la ba mu jeex xale boobu mooy xale bi war a folli Firawna waaye boobu pouvoir bi yàlla jox na ko Asiya e xam nga dañu wax ne mag ñi dañ koy wax dañ ne dañ koy lépp dañ ne dafa am benn xale bu toog ak waajuram ñuy waxtaan mu jékki-jékki rek benn waxambaane bu rëy daldi romb ci digg ëtt bi rek xale bi daal di ne waaw bàyyi xanaa waxambaane bi moom moo mën ci àdduna bi baay bi ne ko ah déedéet waxambaane bi kay mënul ci àdduna bi am na lu ko mën mu ne ko lan moo ko mën mu ne ko jongama ju na ba ko mën fu mu ko fekk rek diri ko yóbbu mu ne ko waaw xanaa jongama moom moo mën ci àdduna bi jongama ju rafet mu ne ko déedéet jongama ju rafet eh, dooma ko mën ndax bu amee doom bu doom ji jooyee rek mu taxalikook sagoom bu ko fekkee muy nelaw dana dagg nelaw yi su ko fekkul muy liggéey dana bàyyi liggéey ba toppatoo doomam ba mu noppi xale bi ne ko waaw bàyyi xanaa kon doom moo mën ci àdduna bi mu ne ko déedéet doom am na lu ko mën mu ne lan moo ko mën mu ne ko jooy waaw xale moom eh, nelaw mu ne ko xale moom su lu muy lu mu wex wex wex su ko nelaw roofoo rek mu daal di tëdd kenn mënu ci dara mu ne ko waaw xanaa nelaw kon moom moom mën ci àdduna bi mu ne ko déedéet nelaw am na lu ko mën mu ne ko lan moo mën nelaw mu ne ko aajo ju të faju soo amee problème te problème ba fajuwul doo nelaw mu ne ko waaw xanaa problème bu të faju moo mën ci àdduna bi ah xam naa ne xale bi mën naa laaj de baay bi ne ko déedéet problème bu të faju E mënul ci àdduna bi mu ne ko lan moo ko mën mu ne ko mbokk yu déggoo te yërëmante te soppante fu ñu fekk aajo ju të faju bu ñu takkoo rek aajo ba faju waaye liñ ci soxla moo di la ko doom ji njëkk laaj ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane mën ci àdduna bi mu ne ko déedéet jongamaa ko mën waaye Firawna lam doon am am kattan lam doon am am doole Asiya ko mën ndax mooy jongama ji nga xamante ni e wax dëgg yàlla e li ñuy wax naan mooy kaani xeeñam taxoon na daal e xamoon na ne itam ñaawoon na njort ci Muusa waaye nag faiblesse ci Asiya tax na reyul Muusa ak itam namm namm yàlla ak dogalam mu ne Asiya Asiya ne ko Firawun bu ko rey mu ne ko bu ko rey mu wax ko alquran nettali ko wa qaalat imraatu firawna quratu aynin lii walak laa taqtuluuhu asa an yanfaanaa aw nattaxisahu waladan mu ne ko firawna kii mën naa nekk sama seddug bët nekk sa seddug bët ndax sëy nañ lu yàgg te amuñu doom mu ne kon bu leen ko rey e te bu ñu ko gardee ëllëg mën na am mu jariñ ñu ñu jàppe ko muy suñu doom comme yàlla ñu doom ndeke itam asiya baax na baaxaay goo xamante ni kàccoor bu mel ni na warul nekk jëkkëram ndax wax nañ ne sax e asiya mi ëllëg àjjana moom mooy nekk soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci soxna yonent bi sallallahu alayhi ci soxna yi yonent bi war a am àjjana ëllëg ci la asiya di bokk te asiya moo doon sëy ak waaye wax nañ ne Firawna waxtu wu masaana soxla Asiya pour sëy ak moom yàlla da daan doxale mbaam ci diggante bi firaaw na sëy ak mbaam mi ba ajoom faju malaaka yi rocciwaat mbaam mi waaye masta joteeg Asiya li ñu sëy li li diiru li mu ànd ak moom yépp lu tax ndax firaaw na kàccoor na kàccoor goo xamante ni lu yonent bi sallallahu alayhi wa moom firaaw na waru ko laal warute joteeg moom ci dara kon amul loolu mooy sababu Asiya bañ a am doom ak Firawna moo tax bi Muusaa ñëwee mu ne ko nanu ko bàyyee mu nekk suñu doom nekk suñu seddu bët ah na daal di ci wax bi ndax boobu bëgg na Asiya mu ne ko kon samihi wa rabbihi fi daar mu ne ko kon wutal ko tur te nga yar ko ci kër gi bàyyi ko fi mu ne ko nag tuddee naa ko Moussa ñu ne ko lu tax nga tuddee ko Moussa mu ne ndax ñu ngi ko fore ci diggante garab ak ñax waaw muu ci arab mooy garab saa mooy ndox nga ne Moussa ndox ak garab ci diggante ndox ak ci diggante garab ak ñax leen ko euh, fore mu mel ni kon tudd nañu yonent yàlla Moussa yar nañ ko ci kër Firawun kon léegi affaire am a ngi commencé y baax waaye coow laa ngi ci liir la war naa am ku ko nàmpal te Asiya juru ko te itam mënul nàmpal fokk mu wuti ñu ko war a mën a nàmpal mu commencé nag wóolu ay nàmpalkat ci pale bi ku ne ñëw jox na sa ween muusa waaye Moussa nanguwul mujj gi mu ne daal dañu dem ca marché ba su ko defee ñu yëg la nag nampalkat yépp nañu ñëw ndax sama sama doom ji daal bëgg naa ku ko nampal bi ñu ñëwee ca marché ba nag ndeke Mariam moom toppoon na maanaam e, sëru Moussa bi toppoon na kees gi ba gis ne e, jaam yi doon sangu ci dex gi forneen ko ba yóbbul ko Asiya waaye mu comme moom ci pale bi lay liggéeyee mu toog rek jàpp njàmburam mel ni bokk tax xale bi dara waaye bi ñu demee bay wut nag wàllu nàmpal ba ba mu gis ne Moussa bañ na nàmpalkat yépp ca la daw nag dem ca yaay ja ne ko yaay e ñëwal gaaw ndax Moussa e, waa kër na yi for nanu ko léegi nag kenn reyu ko e Asiya jàppee na ko doom léegi nag lu ñu bëgg mooy ku ko nàmpal moom nag bañ na nàmpalkat yépp kon nanu dem nga jox ko sa ween ba xam e, waaye nag lu jiitu muy dem proposé na waa kër Firawna ne leen moom gis na koo xamante ni mën na koo nàmpal ba mu ko waxee itam sonal nañ ko ci waaw ndax kooku ñuy wax Haamaan moom moo ko ci sonal waaw loolu la Alquran wax ni wa xaramna alayhi almaradia min qablu fa qaalat hal adullukum ala ahli beytin yakfuluunahu lakum wa hum lahu naasixuun alquran nee na man yàlla ñun yàlla fexe neen ba araamal soowu nàmpalkat yi ci yont yàlla Muusaa nangu ci benn foofu nag la Maryam taxawee ne leen mbokk yi xanaa duma leen tegtal kër goo xamante ni waa kër goo xamante ni bu ñu ñëwee nàmpal xale bi xale bi dana nangu foofu nag la ko xamante ne ko yow mii dafa mel ni xam nga ci mbiru xale bi dara yow mii ku toppatoo say mbir am na loo bokk xale bi mu mel ni xamaan am na gis-gis bu ko yàlla di jox toujours ak li muy kàccoor kàccoor mu ne ko déedéet eh, man dama xam ñooñu seen ñeewante rek ci xale ak ni ñu bëggee xale ak ni ñu mën a toppatoo xale te itam xale xamul lu dul ko ko yërëm ak ko bëgg te itam xam naa seen cofeel ci na ak waa këram e looloo tax rek ma yaakaar ne e comme jox ngeen nàmpalkat yépp ñu ñu bañ ma yaakaar ne ñoom e danañ ko war a mën a nàmpal lool rek la ñu ne ko ah, ko kon bu dee loolu la kon baax na demal nga indi ko ci la dem nag indi yaay ci bi mu ñëwee rek daldi koy jox ween wi rekk Moussa daal nangu mu nampal ko bu mu suur Asiya kontaan ndax Asiya jaaxle woon na ndax cofeelam ci muusa ëppoon na te bëgguloon mukk Moussa dee te itam nanguwul benn nampalkat ba loolu defoon ci moom ak tiis mu yaakaar ne xale bi dana dee ci loxoom moo tax bi nga xamante ni nag yàlla dogal na eh, yaay ji ñëw ba jox ko wenn wi mu nangu Asiya gëmewu ko waaw Asiya nag commencé laaj ko ne ko daal man dama bëgg nga toog fii ci pale bi dama ko nàmpalal dama ko nàmpalal bu ko defee nag ma lay fay nga wax ma e ñaata laa lay fay par weer sa lépp di dox mu ne ko waaw man de bëggoon naa ko waaye wax dëgg yàlla dama di njaboot dama di njaboot te man rek maa nekk ci kër ga te bu ma ñëwee fii ci pale bi toog fii itam sama liggéeyu kër dana tardé ma bëggoon daal su fekkente ni du la gêné nga bàyyi ma rek ma yóbbu xale bi kër ga su ma demee di ko nàmpal foofu su demee ba dëgër ma indil la ko Asiye ne ko ah waaw waaye nga toog ci palais bi rek ndax boobu Asiye dafa bëgg Moussa dafa bëgg xale bi waaye comme yoneen comme yaayu Moussa moom gëm na la yàlla waxoon ak moom te moo di ne danaa la delloo xale bi moom mu dëgër rek waaw dëgër ci rek ne daal moom li mu bëgg daal mooy dellu ca kër ga et nampal foofa xale bi ba mu dëgër mu indil ko ko mu ne ko waaw d'accord kon insisté nga mën naa la bàyyi yóbbu ko kër ga kon soo ko nàmpalee ba mu dëgër nag nga delloo sil ma ko mu ne ko d'accord et ci la ko delloo nag mu boole kook ay soldats ñoo ko escorté yóbbu ko ba ca kër ga e ñu daldi koy wutal lépp loo xamante ni rekk soxla na ko pour lu jëm ci wàllu ndimbalu xale beeg yépp loolu nag muy dëggal li yàlla waxoo nag moom ne ko danaa la delloo xale bi danaa la delloo xale bi te itam danaa ko def mu bokk ci yonent yi yàlla dogal itam fa la nekk yor doomam toog ak xel mu dal et lu mu bëgg yónnee ko ca pale ba ñu fajal ko ko garaatam gën a yokk léppam di dox te xale bi kat mooy xale bi nga xamante ni moo war a folli ji firawna ci nguuram nga xool ne tey su fekkonte ne xale bi e yàlla mënul boppam kon dana ko jaarale feneen waaye noon bi nga xamante ni moom mooy noonam piir moom la ko booleel te mënulu ko dara kon nga xam ne yàlla ku mu àndal rekk et waruloo tiit waruloo rappi rappi e moo tax itam yaayu Moussa xam ne moom la yàlla àndal booba la xelam dal ba ni mu génnee àdduna waaye yontu yàlla Moussa bi mu demee ba dëgër nga xamante ni yaayam nàmpal na ko e, ba nga xamante ni léegi fer na mu war a dellu si nag e, ci kër na yàlla dogal Asiya joxoon teeg yaay ji ne ko nag indil ma ko jour sàngam mu daal di nag yëgle ci dëkk bi yépp ne sama doom ji fer na nag ku am kado nag mu ko indil waaw keroog bi ko yaay ji di indil ci buntu këram la commencé di recevoir ay kado ba ci buntu pale ba ba mu ñëwee Asiya daal di ci or yu am valeur itam jox ko xale bi ne ko loolu mooy sa kado ba pare nag digal yaayu Moussa ne ko demal nga yóbbul ko Firawna moom itam mu jox ko kadoom mu ñëwee mu ngi fekk Firawna mu ngi toog ci chaise garde yépp waru ko mu jël yonent yàlla Moussa rek daldi ko koy jox mu téye ko waaw daldi jël kado jox ko waaye nim ko téye nii mel ni ku koy nax foofu nag fekk firaaw na mu ngi nekk ci àdduna gu yaatu nekk ci péex nekk ci itam nguur goo xamante ni benn nguur masul mel ni moom mu daal di fëgg dënnam moom yonent moom firawna daal di wax ne ana rabbukumul aala man may seen borom bi gën a kawe ndeke bi muy wax wax bi mu ngi uuf yonent yàlla Muusa wax boobu diis ci yonent yàlla Muusa maanaam ana rabbukumul aala mooy man may seen borom bi gën a màgg kon diir na mbagg yàlla ne moom du yàlla ju ndaw yàlla yépp moo leen teg tànk ndeki na dafa am benn sikkim bu gudd yonent yàlla Muusa mu ngi toog firawna uuf ko mu yóotu sikkimu firawna nee neen foofu jox neen ko fa dooley fukki waxambaane yonent yàlla Muusa li muy nekk nekk xale toll ci fer bi mu xëccee sikkimu na bi xëcc bi dafa metti ba na bu doon jullit la ñu ne njàppam toj na ndax xëcc bu metti Firawna daal di mer ndax Moussa def ko rusloo ci biir njabootam mu ne nag léegi nu mu def dana rey yonent yàlla Moussa ndax kii mooy noonam bi mu doon wut kii daal mooy sama noon bi kii daal nañu ko rey liir bii du fi màgge kii dañ koy rey Asiya ne ko déedéet kii xale la li mu def teyu ko e, soo weddee nag li ma la wax moo di nanu jël bàyyi ma ma def benn affaire Asiya daal di dem jël benn weñ bu tàng tàngal ko ba mu xonq daal jël benn benn fruit teg ko ci wetu weñ gi ne ko nag bu fekkente ne jël na fruit bi ñoo xam ne e, du xale mag la li mu def mag a ko def su fekkente ne nag jël na weñ gu tàng gi ñoo xam ne kon yëf yëfi xale la ndax xale xàmmeewul lu baax ak lu bon yonti yàlla Moussa di raam di raam di raam ba bi mu agsee ci ci ci weñ gi rek daal di ciy teg làmmiñ wi ba làmmiñ wi lakk wax ne ne sax pom bi la wuti woon rek fa Jibril fël pom bi fël loxoom mu daldi di wuti nag weñ gi daal di ci teg làmmiñam et loolu taxoon na làmmiñam yàqu ba mu xawoon na dotom tuuti waaye mbokki jullit yi ñu leen di ñaan ci àjjuma bii di ñëw incha allah ñu àggale E histoire bi xam naa nag dana nekk e ay waxtaan yu xaw a takk tuuti wante itam histoire la boo xamante ni alquran moo ko nettali ñuy nettali rek ci làmmiñu alquran et kom waxtu wi dafa jeex nag ñu ngi leen di gërëm di leen nuyu di leen sant seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndao moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Pape Dia wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa